yalla nako yalla fay xolam xale la ndeysaan dem na à la fleur de l'âge bon déjà suñu borom def def na mu juddu ak nat mom gëm nanguna nangu na ba bi ko suñu borom tek ci bir lolu ñëfale ñëfale ñëfale ba ñëpp xam nañu kuy Ablaye Mbaye donc il a fait un chemin et sur ce vraiment amna mérite parce que am na moroomam yoo xam ne kenn xamu leen moom nag sonn na ci musique nag wax dëgg yàlla xaw ma ndax duma sax xam xaw ma sax xam naa ne bu ci am itam barewul. gudd na fan waaye guddul fan waaye li tax ma ne gudd na fan mooy àdduna sa jëf rek bu sellee boo fi teelee jóge it loolu daf fiy dal di des. aq bil aq parce que dañ ne wax ne nit bu génnee àdduna li waxal li nga xam ci moom Ablaye Mbaye teel na am xel daf ko judduwaale nekkoon na école bi nga xam ne fa la silma xëy nekk jàng école dem na ba niveau bac Ablaye mbay woy dugg ko mu daan roy Youssou Ndour bu wooyee nga jaawale baatam ak baasu Youssou Ndour comme que lien de parenté am na ci la ko Mbaye Dieye jëlee nag présenté ko def ko frère am. Ah, daf ñu jëlee kaw parce que ku tey micro di waaj a way batteur bi nekk fële di waaj a tëgg guitariste bi ingénieur de son bi munoo xaar loolu munoo xaar loolu mais loolu yëpp daf ñuy jàngal ci àdduna di ñëwan chaque jour que ne il faut que nit ñi. il faut que nous bien pour moi c'est important. veille bi muy nous ñun ñoo 4 heures du matin donc nous ñun la donc euh, di nga am Nous torop torop torop allah nous bu te ko ko fi indi Nous na ndaw Nous ndaw bi ta Nous mu jeune plein de talents. Euh, nekk koo xam ne yàgg naa liggéey senegal fii ak bitim réew euh, génne ay album yoo xamante ni tey matuwaay bi même bu bare mu néew mu bari nekk na loo xam ni wax dëgg yàlla njàngat mu baree ngi ci biir sorti album yooyu mu def. fi mu jigee fi mu jëm yàlla na ko gënal donc euh, perte nañu nit ku baax la woon wax dëgg yàlla bu amul woon benn xarma yàlla cest di ko xaritu ñëpp la woon ku ci nekk bu la waxee fi mu jaar ak Abdoulaye nga ne yow la gën a nekk sa xarit. donc loolu nag moomeelu yalla la mbaxu yalla mo nekkon ci mom machallah yalla yàlla na ko mbaax boobu yëpp fekk fi mu nekk tay wa génn aduna Ablaye mbay bi touché nek képp kuy artiste képp na képp ko xam ne bokk nga ak moom milier bi te xam li ko dal ni mën na dal ku nekk ndax ku nekk yaangi jaar studio te xam nga yalla mom bu soxla rek. ñun ñu ñak Ablaye mbay nitu kessela won ku mu nekkal nga defee ne yow la gëna bëgg ñu dem tourner France ak Viviane ñu dem dugg ci benn euh, TGV yàlla da jour boobu jëndul woon ticket mu fanaan sama ginnaaw ci kaw ba fajar image boobu nag moom a gën a touché bi ma yëgee dee bi. moom mën a wax moom mooy naqar rek ak mbetteel quoi bu am sunu euh, ci dem bu gaaw bi moo xam ne nii doy na war daal pour ñu mais nag bon comme li ñu wax rek bu amee jullit moom day delloo day delloo lépp ci yàlla ñaanal ko yàlla yóbbu ko ci aljana yi gën a

kon xam Ablaye Mbaye xam ne nitu ñëpp la nit ku baax la sans façon chaque nit koy ñaan yàlla xare ko àjjana saraxam yàgg si ay mbokkam incha allah. ban relation nga amoon ak moom. waaw Ablaye ñoom frère la man kër gi sama kër la man kër dama see bokk ndax sama papa man bi ma jur la kër la màggee ñun si kër gi la màggee kon kër la man suñu frère moo gaañu man damay jàpp ne suma frère moo gaañu ko ñaan fu mu gëm gënal ko fu mu duggee. Ablaye Mbaye ku baax la tey boo xoolee mbooloo mu fi teew yëpp nga xam ne ñëpp la amaloon jàmm fonk liggéeyam am fulla si boppam ak fayda malgré nattu bi ko yàlla teg gëm na ko ñaanul kenn day liggéey pour daan dooleem papam nag barki dem mooy Ndiaye la fi jógee koo xam ne nii moom tey fii seen kër mën nañu wax ne mooy écurie ndaxte mbër yëpp fii lañ nekkoon muy mbéy ku nekk papam doon moom it nekkoon ménager bu am fulla laaj daam di liggéeykat Ablaye doon na ko si loolu kon nag tey bu génnee àdduna vraiment lu metti la waaye na yàlla kenn du xëccoog moom